asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki dars bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen balu xaq di sàkku ci nitam ngeen bal nu xaq bu baax a baax di jiital ci nuyu yooyu ak ziyaara yooyu son excellence ñoo ngi ko nuyu di ko ziyaara di ziyaara itam bàyyi darse bi di cheikh imam Habib Alxaaji Dramé tabaarakallaahu ñoo laa nuyu xanaa nga ne waa ji lim lonko la ki tudd gudd na de ñoo ngi jéggalu di nuyu itam yaayi dars bi soxna la laay sawat dañu ngi kaa nuyu di ko ziyaar di mboolem ñi nga xam ne ñoo fiy jaar ci ay jàngalekat fi fiy jaar ci semaine bi yëpp waaye suñu nuyoo nag ci ñoom ak ña ñuy nekk turbine bi ñu ngi koy teg ci loxol directeur de programme di xaaji ma Cissé xaalum portable ñu ngi laa nuyu di la ziyaara tabaarakallaahu mu mel ni dañuy del siwaat ak Cheikhul Haaji Malik Si radiyallahu anhu fi nga xam ne fi lañ yemoon ak moom ci semaine bi passé yaakaar naa ñu ngi nekkoon ci buntu juróom ñaareel bi góor gi doon ñu fa jàngal faatug yaay yi yonent bi ak na faatu ga demee ak la xew ca gannaaw faatu ga ak ba yonent bi ñëw ci bàmmeelam yooyu góor gi moom leerloon na ko ba mu jàll léegi nag ba mu faatoo ay man mi nga xam ne moom la yonent bi nekkoon ci ay loxoom ci booba la jamono daf ko jël rekk indil ko maamam di Shaybat alhamdi borom béjaa bu ñu sant bi foofee la góor gi kuma war a commencé ak ñun wa ummu aymana baada al ummi li jaddihi Shaybat alhamdi ridal azimi gannaaw ba yaay ay man mi nga xam ne mu ngi tuddoon barakatul xabash nga xam ne nee ñu abdullahi moo ko gore loon ñenn ñi ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gore ndax papa yonent bi moo ko moomoon daf na doon ñetti yonent bi indil kamaam góor gi abdul muttalib léegi nag góor gi abdul muttalib foofu mu ci jotee ci juróom benn at yi juróom ñaari at juróom ñetti at Cheikhul Hadj Malick dig digal boobu lu fa xew ci diggante bi ko góor gi yoree ci ay xeeti xew-xew lépp góor gi dana ko bëccëgal ba mu bëccëge nga xam ne bu pare doo laaj diggante bi lan moo fi xewoon lan la lépp dana bëccëge ci yow góor gi ne wa ummu ay mana ndaw soosu ñoo wax barakatul xabas taxmiluhu boot na yenent bi walla nga ne fab na yenent bi baadal ummi gannaaw faatu yaayi sallallahu alayhi wa sallam si jëme ko fan mu ne li jaddihi jëme ko ca maamam ma man maam si mu ne shaybatal xamdi borom bejjaaw bu ñu sant bi ndax dafa judduwaale ak bejjaaw te dafa nekkoon sang boo xam ne ñëpp dañ daan ñëw daan xettali ko ci moom daan dimbandikoo ci moom hmm? arida kati kañ gërëm al azimi kay aji màgg di borom daraja dégg nga bu baax a baax léegi nag ñoo ne ci loxol góor gi fi saabii al aami wal haadi ataahu bihi ataahu bihi fa yaalahu ramadun fi shiddatil alami juróom benni at juróom ñaareelu at nga laaj Cheikhul Haaj Malik ndax am na lu ci dal Moustapha mu ne waawaaw feebar boobu ñuy wax wànnant day dal na ko ba mu ko dalee ba jaaxle ci ba góor gi jaaxle ci doktooroo doktoor mu yóbbu ko fa ñu jéem ko faj waaye sottiwul ba am ñenn ci mag ñu ko gis ne ko fii ci boori madinatul munawwara sooy dem madinatul munawwara am na labbe bu fa ne labbe bi non seulement docteur la comme ñëpp ku moom maladie bët la soo fa demee daal soo jëflanteeg moom su ngeen jubóoyee tabaarakallaahu dana ko faj góor gi Abdul Mutalib nag takk bagaasam pour seeti loola bagaasam jéem a seeti labbe boobu ñu ko tegtal ah ba mu ñëwee ba gisanteeg labbe bi labbe bi nag waaj tabaarakallaahu pour consulter Moustapha ba mu ñëwee ci bureau bi waleen ñoom ñaar ñu toog mu delloo porte bi ñëw toog na góor gi lu doon tànk yi mu nekk ah, kii de sabab sëtaa waaye nag bëri daal mu am jafe-jafe laba bi xool ko yàgg génne carnet bu mag a mag téere bu mag a mag xool ko xool rasulullaay sigi xoolaat donc kii daal bëgg naa nga xam ne xaatimu nabiyiina wa imaamul mursaliina kii sa sët bii nga wax ne dafa wànnent xam naa ne yeneen yi am na bu des te moom la de mbaar yëg mooy docteur yi docteur yi mbaar yëg nga moom li koy faj ci moom lay bàyyi ko moo mën a faj boppam mu ne ka mu ne ka waaw moo mën a faj boppam kenn du ko faj ko moom mu nekk nu muy fajee boppam mu ne nay jël loram yooyu le di ko def ci bët yi su ko defee dana wér góor gi ab duma nag la ah loolu yombutaa ah. mu ne ko yombul demal nga def lii ma la wax yaa gi di nag heure yoor yoor nga fi ñëw waaye bu fi xaar añ dellu léegi wàññeeku léegi kii moom médicament bi kay faj traité nañ ko bind nañ ko mi ngi noonu ci gi jeex na sa fini loolee la Seexul Xaaj Maalik di nettali sooy firi nag da ngay wax ne wal haadi aji gindee ji te mooy sallallahu alayhi ki nga xam ne mooy gindi mbindee fii jëmaleen ci yàlla ataahu dikkal na mustafa su li ko dikkal mu ne ramadun wànnent kañ la ko dikkal booba ñaat la at la mu ne fii saabi alaami ci atam juróom-ñaar ke dund sallallahu alayhi wa lu ko dikkal lu ramadun bihi ca juróom-ñaari lu at ba bi ci juróom-ñaareel at ba fa yàlla hu ndeysaan yéem naa la ka ñeel ci wànnent woowu ci yiw ak tiraanga fii siddatil alami dégg nga maam ki tarug mitit lool mu nekk wànnent woo xam ne daal xawoon na jaaxal maam ji tabaarakallaahu waaye wax naa la maam joom jaaxle ñu tegtal ko làbbi be comme xiisa boobu ma la wax léegi ah demal léegi ci yax bi hudi ila rahibin tabbin yaqulu lahu dawaauhu riquhu farji ilal xaaraami moo tax mu ne hudi tegtaleef na góor gi abdul mutalib ila rahibin jëm ci benn labbe boo xam ne tabbin médecin la docteur la boo xam ne bu xereñ la lool ba àgg ci dayob xereñ ba mu àggee ba ba mu consulté leen ba pare yaqulu wax na lahu ñel góor gi Abdul Muttalib ne ko hey dawaa uhu médicament Moustapha yi ko war a faj mu ne ko waaw si mun a riquhu mooy loram yi lor yi muy génne di daf li di moo tax ndeysaan léeg-léeg est que nit ñi sax fa lañ jëlee ne boo amee putantaan yi nekk ci bët yooyu ñaan del tooyal sa baaraam sa loxo sa gémmiñ ji dëkk ci raay dana wér ah est-ce que foofu lañ ko jëlee rek <laughs> eh, doy na waar moo ngoog kon nag dawaa uhu saafaraam daal riiquhu góor gi ne ka ah, góor gi la yomb mu ne hey jël ndax yomb naag yombul te yoon nekkul ci loolu far jeex wàññikul ci tàng-tàng bi ilal xaram yi jëmaat ca xurumi màkka ja wàññikul wàññiku jot na ndax defatoo fi dara nag lii moo nekkoon sa yitte sa yitte faju na ay ca jeex na ma ngoog ña ngi ci juróom-ñaari at ma de juróom-ñaari at yi la ci xew lay continuer de wal jaddu fi l aami yamshi libni zi yazanin li kay fi l mulki wal imaami ndeysaan bañ demee bu Moustapha am juróom-ñaari at am na leneen lu ci xew mooy Sayf ibn Ziyazin nekkoon benn de d'état ci boori Yaman falu bees nag comme ni nga gisee suñ chef d'état yi bu ñu faloo bees di prêter serment lañ koy wax xaw ma lan ak lan dangaa gis seen mbokk chef d'état yi ñëw di leen ndokkeel si ñu invité leen ñu yëkkat seen loxo yi naan ñi ngay giñ ak ñi ngay ŋàppate ñi ngay ngóolóoli serment boobu nag jamono bi ñu koy def comme dañuy doxal mbirum diplomatie ci seen jamono booba la góor gi Abdul moo nekkoon chef de wu Makka moom it dal di ànd ak délégation bu mag a mag dem fekkee prêter serment boobu le ba muy dem nag ànd naa kooku ñuy wax Umayyatu ibnu Abdu Sams woon ci délégation ba Asad ibnu Abdul Uzza ma nga woon ci délégation ba Abdullah ibnu Juraan ma nga woon ca délégation ba wax Wahb ibn Abdu Manaaf ma nga woon ca délégation ba ak beneen xusay mi nga xam ne mi ngi bokkoon ci bani Abdu Daar moom it ma nga woon ca délégation ba kon délégation bi mbooloo mu xumb la woon ba ñu demee nag ndokkeelanteeg moom ba waxtaan ba pare mu xool yenent bi nag kan moo ànd ak gone gii ne góor gi Abdul Mutalib ne ko man la mu ne ko soxla naa la ñu gisee ñu ñaaroo de ndax lii may waxanteeg yow dafa aajowoo feex nag ba ñu wéetee mu ne ko maa ngi lay wax loo xam ne bu mu wóoram ne nekkuloo denckatu sekkere duma ko mës a ñeppi te li ma lay ñaan nag bu ko feeñal lu dul yàlla dala caa jox ndigal te xam naa ne heure lay xam mu génnee ci armuwaalam ngandum téere mu toll ni kaay leen ba mu ko génnee mu ne ko gis nga ko de fii sax ku nekkul kilifa ci ñun mënuloo koo xam gis nga téere bii te mooy injiil téere bii ci xale bi lay wax wanne moom la yàlla di yónni ci mbindéef yëpp ceeb bi buy tooy mooma moom na critère yëpp yëpp mu jox ko mu ne pour ma jox la preuve nag wane ne moom la baayam faatu na ba ñu ko ëmbee ba am ñaari weer yaayam itam faatu na bu mu amee juróom-benni weer te xam naa ne yaram it ci sa loxo la nekk te waaye balaa yàgg da nga fee jug te boo fi jugee dafaa dellu ci bàyyi taxam àdduna bi yépp ci loxoom la ko yàlla teg mu koy doxal ci ndigalal yàlla tabaarakallaahu dana dem ba jëlee fi loolu ñuy wax xërëm nga xam ne day nit ñi yàlla rek lañuy ñuy jaamu di atte wa téeréem tabaarakallaahu digle lu baax tere lu bon yëpp ba mu ko waxee ba teer nag mu nekk na yam suñu diggante ndax euh, bu ko bu ko bu ko làbbe yëgee dañ la indil jafe-jafe waxuma làbbe yëg ko sax waay sa mbokki bopp yi bu ñu ko yëgee daañu la indil jafe-jafe ndax dañ la iñaane mbala ñu soxore la leneen xew ca te loolu yëpp bëgguma mu am ca lii xew na ci juróom-ñaari ati Moustapha ya loolee la Seydul Xaaji Maalik Jeet moo tax mu ne wal jaddu maama di góor gi Abdul Muttalib yam si fil aami ci atam juróom-ñaar ca dunu rasulullahi yam si ma ngaa dox moom góor gi lib zi yasanin jëm ci sayf ibn zi yasin pour laan ndokkeeli ko li kay yuhanni ahu pour naka ndokkeel ci nguuram googu fil mulki ci nguuram googu wal imami ak yaatuta dundam googu ak naataangeem googu tabaarakallaahu poloteem googu mu dikk ndokkeel ko ca ñi nga xam ne ñoo ñëwoon nag ci prêter serment bi képp ku fa ñëwoon di chef d'état ba ngay dem sayf am na lu mu yëkkati jox la ko ci cadeau pour lu gën a dëgëral seen diggante ci côté kóllëre waaye la nga xam ne moom la defal Abdul Mutalib ànd ak àndoon ak moom moom dangaa jox may gu bëri lool alal ju bëri lool ba kenn xamu nu mu day moo tax mu ne ahdaahu jamman wa bilmardi basharahu bi asdaqil qawli sidqan gayra muttahami ahdaahu may na góor gi abdul muttalib jamman may gu bëri lool yamul ca may gu bëri gi waaye non seulement wa basharahu bégal na abdul mutalib bil mardi ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci xeet yooyu nga xam ne moom la gis ci yenent bi wax ko ko bil mardi mu waxee ko nag bi astaqil qawli ci gën jaa dëgguy kàddu xan mu nekk lu ñu dëggal ak dëgg goo xam ne xayra mutahimi ah nekkul ku ñu tuumaal ci wax ja mbir mi daal na mu ko waxee woon yëpp noonu la amee bu fekkoon ne da ci am lu manqué ñu ne waxul dëgg wala nangam ak nangam waaye yooyu yëpp daal tabaarakallaahu na mu ko waxee woon noonu la amee kama gada fihi yastasqi musaahibahu min ajli ruya wa rabbi waahi yutumi foofu it am na leen lu ci xawaat ci juróom-ñaari at ya de màkka bekkoor bekkoor bu tar lool lool lool lool lool bañ jaaxle benn soxna bu Shaybat alhamdi di góor gi Abdul Mutalib bu ñuy wax Ruqaykatu bintu abi saf sayfi moo gént génn gént gént ga nag mooy dañ ne ko mu dégg ku koy wax ca biir gént ga naan kaa yéen mboolam Quraysh bëgg naa ngeen xam ne nekk na ci seen biir yenent boo xam ne ñu ko yónni te jamono bu ñu koy yónnee ngi bëgg a jege su ngeen bëggee génn ci seen bekkoor bi ak xate-xate yi ak kiris bi ngeen di dund ngeen am naataange xool leen xale boobu ngeen taasu ci barkeem yàlla wàcce leen taw ca biir gént gi ñu ne xool xale bi du jafe dañ leen di yebal ci koo xam ne moo gën a digg doomu ci yéen weex tar am ay yéen ak xef tabaarakallaahu lex yi ra tax kooka su ngeen demee këram këram la xale bi ne te màndarga yooyu ñu wax yëpp ci góor gi Abdul Mutalib la nekk waaye nag su ngeen koy def su ngeen bëggee lafal xale bi cat da ngeen di génn noonu xale yi yëpp quartier bu ci ne wala kër gu ci ne ngeen génn fa genn gone sañseel gone yi ñu parfum wu ñëw ci doj woowu ñuy wax abi xubays yéeg foofa toroxlu ñaan yàlla taw bi wàcc su ko defee ngeen lafaale rasulullahi cat ndaw si soxna góor gi ba mu yeewoo ci gént gi wax lii góor gi ah góor gi itam daal di convoqué pour daje nit ñi wax ak ñoom na leen comme dëkk bi dafa bekkoor te sama soxna si am na gént gu mu gént te comme xamuñ ci xale yi ban xale la dañoo bëgg xale yépp ñu génn leen sañsel leen parfum leen tabaarakallaahu yóbbu leen ca montagne ma ñu ñaan suñu ñaanee yàlla mën yaa def sutura ba ñuy ñëw rek rasulullahi ma ngay ba ñëwee ba ca xeer wa ah abdul mutalib ko mooy chef d'état bi mooy yëkkati kàddu ne yow yàlla ñii de say jaam la say doomi jaam lañu say doomi jéebéer lañu ah gis nga li wàcc ci ñun ba koor bi tar na métti na jur gaa ngee dee ñun amatuñ lu lekk ba metti lool hmm? ndeysaan ca la ndaw sa doon waxee bi shaybatal xamdi askalla askallaahu askallaahu baldatanaa waqad faqadna alxayaa wajla wasal matru hmm. fa jaada bilmaa il jawni lahu subul ma daana fa aasat bihi l anaamu wa shajar man na min allaahi bilmaymun taayira wa xayru man busirat yowman bihi l mudar kooku mooy sallallahu alayhi wa wax ci waxam yooyu le tabaarakallaahu ñu yéen yéen yéegal yenent bi ca kaw xeer ba moom moo demee gonam ya lépp mujj sotti loolu noonu la demee xisa boobe la góor gi nettali comme gént googu ma la wax dégg nga ko baax kama gada fihi yastasqi musaahibahu min nee na kama comme naka la mujje kom naka la mujjee fii ci juróom-ñaareelu at ci dund sallallahu alayhi wa sallam yastasqi di sàkkoo nandulu musaahibahu mbir moom muy aji àndaaleeg sallallahu alayhi wa sallam moom góor gi Abdul Mutalib nu mu dafa àndaale moom mu ne min ajli ruyaa ngir digg gént goo xam ne soxnaam soosu ñuy wax Ruqayka géntoon na ko wa rabbi sama borom daal waahibu yutumi aji maye ji taw tabaarakallaahu mooy fajal na leen seen aajo ci daraja yi sallallaahu alayhi wa te kenn xamul moo tax ñu faj seen aajo tabaarakallaahu euh, yaakaar naa war nañu taxaw noonu ndax comme day dugg beneen bayit bi te bi euh, watul dana am xisa hmm, ñu ko taxaw noonu rek incha allahu taala di jégaluwaat ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa